Ousmane Diakhaté, président du RASIAT. Nous sommes réunis aujourd'hui sous la coordination de l'association ADOP, sous la présence de la Sonacos, du COPEGA, de CODIPAS, qui sont des associations et des grandes industries qui s'opèrent dans la, dans la filière arachidière. Notre réunion d'aujourd'hui est du fait que depuis le début de la campagne de commercialisation qui a débuté le novembre, ne trouvons pas notre compte sur le, sur le commerce pour, la raison, pour, la, pour une seule raison. Des entrepreneurs ou des opérateurs chinois sont venus acheter, collecter les graines d'arachide stockées en attendant d'avoir l'autorisation d'exporter. Cela pose problème parce qu'aujourd'hui, après presque un mois de campagne, les intertransformes, les grandes industries comme la Sanacos, comme l'Eurasiat, comme le Copega ne trouvent pas leur compte parce que les Chinois proposent des prix Et tout le monde pense que c'est un bien pour l'agriculteur, alors qu'on est en train de tuer la filière arachidière. Pourquoi Parce que l'exportateur exporte d'abord les semences. Et tout le monde sait que si les semences sont exportées, l'année prochaine, nous n'aurons pas à, à, à, faire de l'arachide. Les exportateurs sont en d'exporter des graines d'arachide qui pouvaient servir à l'huilerie pour mettre à la disposition des Sénégalais une huile d'arachide de qualité. Parce que tout le monde vie particulièrement l'huile qui coûte excessivement cher parce que dépendant des importations sur un marché mondial marqué par le Covid et la guerre en Ukraine. Tout le monde sait que si les exportations réussissent, ce qu'ils sont en train de faire, nous n'aurons pas de l'aliment de bétail. Et ça a des conséquences sur l'alimentation du bétail, sur le, le, coût de la viande, sur le coût de mouton, etc. Donc nous sommes là pour interpeller l'État, pour leur dire le jour où, ouvre les marchés pour les exportations, On est en train de souffrir, mais les conséquences seront pour tous les Sénégalais. On, est, a travaillé sur un document pour dire les problèmes et proposer des solutions. Nous ferons part ce document à Sri Moutahambake et à, au président Macky Sall pour qu'il sache que si les exportations réussissent leur coût, ce sera, ce sera très difficile pour l'économie et pour tous les consommateurs sénégalais. Parce que tout le monde a dit, bon, officiellement on a 1 500 000 tonnes, mais tous les acteurs sont d'accord que le chiffre n'est pas ah, conforme à ce que l'on voit sur le terrain. Il y a certains qui disent qu'on n'a même pas le quart des chiffres avancés. Parce que si on a 1 500 000 tonnes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a plus d'arachides qu'en 2010. Ça veut dire Alors que pendant ce temps, euh, on avait moins ou 2010, l'arachide était là jusqu'au mois de juin. Et tous les paysans sont d'accord que les rendements de cette année sont, sont, ne sont pas bons. Et ça, c'est une conséquence des exportations. Ça, on le dit depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on dit que si on n'arrête pas les exportations, on va tuer le capital semencier. Et on est en train de vivre ça. Tout le monde a vu que l'année dernière, la pluviométrie était au rendez-vous. les terres sont, n'a pas parce qu'on n'a pas eu de bonnes semences, parce je comprends bien, vous parlez de fiasco pour certains Mais on peut dire absolument, parce qu'un mois après le démarrage, si la Solancos n'arrive pas à collecter un kilogramme d'arachide, si les opérateurs, les exportateurs sénégalais sont là, représentés par le COPEGA, n'arrivent pas à exporter, si les, les, les transformateurs locaux que, je représente n'arrivent pas à avoir des graines pour, pour transformer, donc on peut dire que c'est un échec. Mais le plus grave, c'est que les opérateurs semenciers qui doivent servir les, pour l'année dernière, n'ont pas encore réussi à collecter un kilogramme de semences. Donc c'est un échec. Aujourd'hui, les associations d'ADOP, du RASIAT euh, et du CODIPAS ont décidé de tenir une réunion de concertation nationale à travers, à travers laquelle elles ont invité des partenaires comme la Sonacos, comme le COPEGA et tous les acteurs évoluant dans la filière de l'arachide. Parce que on, on a tous constaté que la campagne de commercialisation, de commercialisation de l'arachide de cette année a déjà tout d'un fiasco. Parce que tous les acteurs se plaignent. Ensuite, il y a d'énormes risques d'absence de capital semencier lors des prochaines échéances hivernales, n'est-ce pas C'est pourquoi on s'est décidé de réunir, d'alerter l'État, l'autorité compétente, sur la, sur la situation qui est tellement grave que la filière de l'arachide est aujourd'hui menacée à disparaître si le cap, s'il n'existe plus de capital semencier. Donc l'État a le devoir et l'obligation de préserver le capital semencier. Pour ce faire, on a proposé à l'État d'abord de payer les arriérés sur les opérateurs de semences. Ensuite, sur chaque année, avant le démarrage de la campagne, l'État doit donner les notifications à temps, c'est-à-dire vers le mois de novembre, pour que les opérateurs semenciers puissent collecter les quantités et les variétés demandées par l'État. Et une fois ces quantités collectées, l'État a le devoir de vérifier la confirmité des stocks en quantité et en qualité. Et à partir de ce moment-là, elle peut ouvrir les, œuvres, elle peut ouvrir les frontières pour les étrangers. Donc nous, on n'est pas contre la venue d'étrangers. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les Chinois sont des acteurs de la filière, au même titre que les huiliers, au même titre que les opérateurs, les opérateurs etc., etc. Mais ce que l'on souhaite, c'est que les étrangers soient encadrés, que l'activité soit réorganisée. On propose à l'État d'orienter les exportateurs étrangers à travers des organisations d'exportation de Sénégalais. Parce qu'il n'est pas normal de permettre à un étranger de venir entrer n'importe où, aller dans la brousse, dans des, dans des centres de, collecte, de, de collecte non officiels, n'est-ce pas Ça sème la discorde et ça tue la filière. C'est pourquoi on demande à ce que ça soit organisé. Ensuite, les centres de décortiquage et de triage, dans ces centres-là, rien qu'à Touba, on emploie plus de 30 000 personnes, jeunes, femmes et jeunes, à travers ces centres-là. Rémunérés à 3 000 francs en pleine campagne, ça donne des estimations de des centaines de millions de salaires, mm, de salles de masse salariale par mois. Donc, la venue des, la venue des, des, des, des, Chinois et Indiens, etc., tue ces activités dans les centre de décortiquage et de triage. Ensuite, les commerçants intermédiaires communément appelés banabana également non, ne travaillent plus. Les usines sont fermées. Personne ne travaille. Il n'y a que les Chinois ici qui dictent la loi. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, à travers tous ces problèmes-là, on a décidé le l'État pour prendre les, les, les, mesures adéquates avant qu'il ne soit trop tard. Je suis secrétaire général national adjoint au syndicat Progrès Sodakos. donc dañ ñëwoon tey fekk si suñu mbokk waa Touba yi xam ne dañuy yëngu ci mbiru gerte gi pour ñu ànd jàmbat ci ci loxo yi nguur gi li nga xam ne moom moo ñu boole tey dajale muy gerte gi nar a ndax saay ci réewum Sénégal mii te loolu dafa nekk loo xam ne mënta nekk li nga xam ne doon nañ ko jàmbat ci at yi passé yëpp mooy nañu organiser filière arachide bi su ko defee ku nekk mën ci gis boppam muy ñi ciy liggéey ci Touba ak dégg nga li mu wax ci lu ci toll ci ay jigéen ak xale yu ciy liggéey boo jëlee ci Sonacos bu fekkee jël na deux cent mille tonnes di nga gis ne dix mille camions la ñuy soxla pour mu transporter loolu. di nga gis ne loolu lu ci nekk dix mille camions di nga jël vingt mille chef vingt mille personnes yi ciy liggéey boole gargot yeeg tout ce qu'il y a derrière toute cette industrie là sans di recruter ay milliers milliers emplois ci zone Sénégal yi mu nekk yëpp. loolu nag tey li liñ ci daan jàmbat dafa gën a yées léegi parce que ñun dañ daan wax gerte gi bu ñu ko bàyyi mu dem fekk usines yi ak industrie yi nga xam ne ñoo ciy liggéey ak ñi exporté te dëkk ci réew mi yépp nañ ci liggéey su ko nekkee ku gis ci boppam mais fii li liñ fi gis mooy laax jaay bàyyi sa njaboot gi war a lekk toog te loolu moo ngi li nga xam ne jaaduwul ñun réew mi ci lañ bokk dañu war a wax Sénégal d'abord mais waruñu wax Chine avant Sénégal même bu fekkee am nañ ay accord ak yooyu dañu war a d'accord ne nit ki da ngay faral sa réew ba pare li ci des nag bu fekkee munu ko nga jaay ñuy jaay ñun yi jënd ci bitim réew yi yépp li nga xam ne defar nañ ko ba lijjanti ba mu des excédent ya la ñuy jël di ko exporter ñoom excédent ñeneen ñi sa excédent wu ren du ñu koy yóbbu mais excédent wu daaw ak daaw jeeg la ñuy exporter pour désoste bi mais fii ngay gis ñun ñu ñi ñu bay état bi jël xaalisu Sénégal def ko ci semence bi def ko ci jiw def ci 60 milliards ba pare bu ñu paree ñu ñëw ay ay chinois ñeneen ñëw jóge ci àll ba ñëw jël gerte gi jënd ko ca biir tool ya ñi ci waroon nekk intermédiaire ak ñi waroon a exporter ak ñi waroon liggéey ñëpp dem toog léegi ñu jël gerte gi yóbbu ko transporter waale en même temps suñu main parce que main d'œuvre boobu war a liggéey ci intermédiaire tool ba ba indi ko ci usines yi ak ñi ciy liggéey ci biir dagge yi ci Touba ak yeneen usines yi ci Sonacos yëpp ñooñu ñëpp dañuy dem tooge boor chinois yi jógee fële fekk état bi moo subventionné ñun suñuy impôt ba noppi léegi ñu jël jox ko noonu ñu dem loolu la ñu wax ne dafay dakk dafay dakk te ba ñu ci dara nag dina dinañu yëglu comme ni ñu ko waxee ci kilifa gi nga xam ne moo fi nekk muy sang bu tedd bi Cheikh Mountakha wax ak Macky Sall mi nga xam ne dañ ko dénk suñum réew dañ kaa dénk mais ñu ñoo ko moom léegi nag bu fekkee dañ la dénk dara ña la dénk da ngay xool la ci seen intérêt loolu moom mooy dëgg loolu moo tax ñu ñu ñëw fii daje fi te fasuñ ci yéene recul la ci dara lii commencement dong la affaire bi moom dinañ ko teg ci yoon wala fu ñu bëgg ñu dem ci